إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله gannaaw ba ñu sante suñu boroom seede na yàlla dong mooy ki yeyoo ñu koy jaamu jullit du yaakaar ku dul yàlla du woo ku dul yàlla du sukkandiku lu dul ci yàlla ci àdduna ak àllaaxira mbokk jullit ñu ngi leen di dénk ngeen ragal yàlla tey jii ñu bëgg a fàttali ci occasion boo xamee ne nii mooy li ñuy tuddee 31 décembre lan mooy 31 décembre mooy feet googee nga xam ne daa jóge ca ña nga xam ne bokkuñu ak ñoom diine ñu tey màggal la nga xamee ne nii mooy seen jeexitulu at bi ñuy askane Isa ibnu Maryam 31 décembre boobee dana ca am ñoo ñee nga xam ne ñoo ko sos sax waxtu yuñ naan dañuy dem seen église ya amma bu dee la ëpp ci jullit ñi nga xam ne ñoom xamuñu ci seen diina dara dañoo jàpp ne 31 décembre occasion la pour génn kër yi jaxase xale yu góor yi jigéen ñi taal musique yi lekk yu neex fanaane tànqal nit ñi ba baa suba di jot mbokk jullit loolu nag bokk na loo xam ne dana cay feeñ mooy musiba bu bon bii nga xamee ni nii suñu borom yàlla jalla wa ala araamal na ko ñaawlu na ko tëkkoo na ci ca àdduna ak àllaaxira ca loolu mbokk mooy la nga xam ne mooy ak njaaloo mbokk jullit xam leen ne lii nga xam ne mooy ak njaaloo tey jii bu ñu xoolee adduna bi ni muy doxee Occident bi ñu demee ba not adduna bi ak seeni xalaat doomu aadama yi araamalu tuñu njaaloo la nga xamee ne moom la ñu araamal mooy li ñuy tudde viol mooy daal ànd ak koo xam ne neexu ko ba tey boo demoon ci dëkk yu bari en Occident da ngay gis soxna su xëy dem police ne démb sama jëkkër def ma violé ca mooy ànd nag man ànd bu ma neexul amma bu dee ña ko siq ñoo ci d'accord tey bépp xale bu jigéen bu am 18 ans am nga droit dem léegi polyclinique ne jox leen ma carnet dama bëgg bu guddee may dem di jaay sama bopp ñu defal la sa carnet policier gendarme kenn amul droit dajagew nan la looy dox ngay jaay sa bopp yoonu kenn nekku ci loolu mbokk mooy doxalinu Occident bi nga xam ne ñoom jël nañ yàlla sànni ca àll ba xalaatuñu àllaaxira waaye ay yéen doomi jullit ngal la way bàyyi leen xel la nga xamee ne mooy njaanoo boobee suñu borom yàlla moo ñu bind moo ñu séddale def ñu ay góor ak i jigéen daa di tëral ci ne ànd leen ànd bu dagan boo teey njaboot gu baax juddoo ca waaye képp koo xam ne dem na ànd ak sa moroom ku mel noonu day yaay ka nga xam ne yaa jéggi dayoo borom bi daa di diggaate la nga xam ne mooy àjjanay firdawsil aala ña nga xam ne ñoo fa nar a dëkkee mooy ña nga xam ne dañuy téye seen bopp góor lañu walla jigéen ci bépp façon njaaloo loolee da ngay gis ne borom bi subhaanahu wa taala mi ngi leen di dig loolu xam leen ne mbokk jullit bokk na lu gën a suufee bokk na lu gën a bon doomu aadama bi topp ay bànneexam bànneex yooyu ba ca gën a ñaaw mooy la nga xamee ne nii moom mooy ak njaaloo suñu borom lënkale na ko ak bakkaar bi gën a bon muy bokkaale lënkale na ko moom ci place yu bari ci téeram bu tedd bi lënkale na ko ci ak suufeem mu ne ki nga xam ne mooy njaalookat bu feeñal njaaloom amul kenn koy dem di séyeg moom lu dul bokkaalekat wala njaalookat ne moom jigéen ji it naka noonu jigéen ñi njaaloo ba feeñal ak njaaloom kenn du dem di séeg moom lu dul bokkaalekat wala njaalookat ne moom loolee mbokk da ngay gis borom bi subhanahu wa taala méngale na ko boole koog encore la muy diggaati ci mbugal yu tar mi ngay lënkale njaaloo gaag shirk ba ak rey nit ga foofe ca mooy ibaadu rahmaan ñi nga xam ne du ñu woo beneen yàlla bu dul yàlla du ñu rey nit waaye itamit borom bi mu ne du ñu njaaloo nee na ku def lii mbugal yu ñu ful moo koy xaar la nga xam ne mooy àllaaxira ay yéen mbokk julit xam leen ne bu doon te ne yàlla digaatewu ci benn mbugal yow xalaatkat bi xool di xalaat kay xool lan la njaaloo mën a indi mbokk njaalookat foo ko fekk du mën a nekk à jour di mën a am contrôle ci alalam ba sunu maam yi dañ daan boole njaalookat kartekat naankat kenn du ko may jabar lu tax da ngay gis na njaalookat jigéen ba mu bëgg a njaalook moom ba xemmem ko jaral na ko lu nekk ci àdduna loolee kon dara gënu koo nekk yàq xaalis waaye mbokk ndax xam ngeen lu gën a mën a yàq ay der lu mel ne njaaloo xoolal ki nga xam ne nii feeñal na ak njaaloo kookee na muy yàq ab deru boppam yàq deru deru njabootam yàq deru la nga xam ne nii ay borom këram wala soxnaam mboolem ko ko xam jege ko rek da ngay gis kookee na nga xam ne noonu la njaaloo ko di yàq ab deram mbokk njaaloo lan la mën a yàq ci ay doom ki nga xam ne day dem di njaaloo kenn ci ñoom bëggu ca am doom ca njaaloo googee ña nga xam ne am nañ cay doom lu bari ca góor ñi dañ koy rejeté na juruñu ko ñaata ci ay milliers ci ay xale yu ndaw la ñuy jël di sànni ci poubelle yi ngiree ne dañoo juddoo ci lan dañoo juddoo ci njaaloo loolee mbokk njaaloo googu même bu ci yàlla digalul woon mbugal ay yow mii borom xel xoolal naka la mën a freiné li ñuy tudde mariage ki nga xamee ne nii dafay xale bu góor wala ku jigéen bàyyiwul xel yàlla lim bëgg heure bu ko mënee am am ko lu muy doyee mariage lu mel ne caricature ya ca gaa yi wax soxna sa ba mu toppee waaja da ko waaye suñu diggante bi yàgg na waay kaay takk ma mu ne ko su ma la takkee nii su ma la takkul nii takk gi lan la ñuy yokk mbokk loolu di musiba bu rëy bal am na benn waay bu ma xam bu baax a baax dem na ba mage benn soxna rek la yor lan mooy layam mu ne man wër naa Sénégal amul benn jigéen ci classe bu mu mën a doon boo xam ne ni ump na ma soxlaatuma jigéen loolee mbokk ngeen gis kon njaaloo naka lay freiné nan la koy tëjee la nga xame ne nii mooy buntu sëy mbokk dara gënu munul nekk indi fitna ci la nga xam ne mooy njaaloo googee yàlla lënkale na ko ay place yu bari ci téereb yàlla bi ak rey nit suratul anam demal suratul isra demal la nga xam ne ni mooy suratu furqaan ak yeneen heure bu yàlla waxee rey njaaloo rek da cay teg rey doomu aadama bi nga xam ne ak ñi ca des na ci moom heure bu yégee ne nit njaaloo nag jabaram wala doomam bu jigéen wala yaayam wala sëram lenn dong dong dong moo mën na seral xorom mu rey ko lenn dong moo mën na seral xorom mu rey ko looloo tax boo demee société yi nga xam ne nii lu ci bëri ci ay loi amu fa rayante du jeex ci ay jigéen yoo xam ne rey nañ ci ñoom ay nit ñu dul jeex lii mbokk da ngay gis lii lépp nekk na danger ci la nga xame ne nii mooy njaaloo gu bon googe ak a mën a dindi kersa magaa yi jigéen bi nga xam ne attan naa dem futtee ko ci kanamu góoru jàmbur kookee ana kersaam te yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na al iman wal xayaa xurana xurina ngëm yàlla ak kersa dañ koo lënkale bu benn ba demee ba ca des yóbbu na ko loolu tax yonente bi alayhi salaam ne aji njaaloo ji jamono bi muy njaaloo gëmut xanaa kay day njaaloo ba pare ngëm nga ñu xool ndax dana dellu seem déet waaye jamono ba muy njaaloo moom nekkul koo xam ne ne ko gëm la mi ngi ànd ak mberum yàlla subhanahu wa taala loolu moo tax ba ngan la waaye xam leen ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na loo xam ne nii sax na ci li ay am njàngaleem njaaloo dafay muur la nga xam ne mooy leeru xol njaaloo dafay indi merum yàlla nee na ñi nga xamee ni nii ay njaalookat lañu ci loo xam ne yàlla moo ko ko won ca daje boobee mu daje woon ak jibril alayhi salaam ak mikail ci gént goo xam ne yonent moom du gént lu mu gént rek moog lu mu gis a yem nee na dem nañ ci benn genre fuur boo xam ne machine fa lu doon ci ay góor ak jigéen ñi ngi def yaramu neen am na safara buy jóge ci suuf di lakk seen awra yi ñuy yuuxu yuuxu yoo xam ne jéggi na dayoo ma ne waaw jibril ñii ñooy ñan mu ne mooy ñii ñooy njaalookat yi nga xam ne ñoo doon njaaloo ci kaw suuf fii la leen yàlla di bàyyi ba bàyyi yawmal qiyaama ñu doog a xool seeni dossier ay yow mbokku jullit bi dégg lii ngal la waaye bàyyil xel islaam day mooy diine yërmaande looloo tax ba suñu borom jàll wa ala teete na jullit ñi ci yoon boo xam ne suñ ca jaaree day daañ mën a mucc ci njaaloo la jiitu borom bi mu ne yéen ñi yor atteb lislaam bépp célibataire koo xam ne musul sëyi ba pare njaaloo fi jàpp leen ko yóbbu ca pénc ma dóor leen ko téeméeri yar bu dee góor la bu dee jigéen la dóor leen téeméeri yar amma bu dee mas naa sëy nag ba pare di njaaloo mu am ay preuve ya nga xam ne moo sax saxal ne da doon njaaloo yóbbu leen ko ci pénc ma woo leen mbooloo mi indi leen ay xeer dee leen ko dóor xeer ba mu dee lii mooy la nga xam ne mooy payu képp koo xam ne mas naa sëy ba pare nekk mbokk di njaaloo ay yéen mbokk julit xam leen ne day suñu borom jàll waala gannaaw punition bu bon bu ñaaw boobee woo na it julit ñi ne leen ay yéen julit ñi yéen góor ñi day leen sajj seeni gis bu leen di nekk di xool awray jigéen yi yéen jigéen ñi day leen sajj seen bis seen gis bu leen nekk di xool góor ñi xoolaay boo xam ne xoolaay yu bànneex la ay yéen ba ko julit naka la ñuy jëlee lii tey ak la nga xam ne nii moom mooy internet naka la ñuy jëlee lii suñu boroom bi mu xamee ne moom moo bind moo xam ki nga xam ne dafay xool jigéenu jàmbur loolee mën na jeexital ci xolam góoru jàmbur mën na jeexital ci xolam ana tey xale yi nga xam ne nii tey borom xam-xam yëpp dañ koy tuddee mooy zina internet mooy njaaloog internet ci la ñuy fanaan fanaane échanger ay wax fanaane échange ay ay ay ay image ay vidéo mbokk loolu da ngay gis dara mënul nekk gën a nekk musiba loolu ndegam suñu borom dana la booy dox ci mbedd mi ba gis jigéenu jàmbur sajjal sa xef waaw ana kii def loolu luñ koy féetalee ndax yàlla fa la yem déedéet mu ne ay yéen jigéen ñi muur leen seen awra la nga xam ne mooy ñu gën a tolérant ci borom xam-xam yi mooy ñi ne jigéen mën naa génn xar kanamam ak tibi daraam su dee fitna amul su fitna amee da ko war a muur amma bu dee ne ñeneen ñi nga xam ne sax ñoom dañoo gën a tengal dañ ne déedéet jigéen gannaaw liste bi yàlla liste na ñi ñooy ay jegeñaaleem kenn warul gis ci moom dara donte ne ne tubaab yi dañ naan dans le pays des aveugles la borgne ay roi ak ne xool ñun ñépp ñu jël rek la nga xam ne ni mooy ñu gën a tolérant la ñu wax mooy jigéen ñi di muur seen awra ba mu des seen kanam ba ñuy génne ak la nga xam ne mooy seeni loxo lii mbokk da ngay gis ne yii képp koo xam ne nii matal na ko am nga quatre-vingt-dix-neuf pour cent ci mucc ca la nga xamee ne nii mooy bàkkaaru bon boobee nekk bàkkaaru njaaloo mbokk lislaam lii la tere wéetaay góor ak jigéen yonent bi alayhi salaam mu ne góor ak jigéen bu leen wéet mukk ndax fi ngeen wéete seytaane moo ñëw ñetteel leen loolee ñu bàyyi ci xel bu baax góor du wéet ak jigéen ci ay néeg góor du wéet ak jigéen ci ay bureau góor du wéet ak jigéen ci ay appartement foo xamee ni nii man ngeen faa def temps boo xam ne man ngeen faa def lu kenn yëgul loolee seytaane day yow ñetteel leen mbokk ci noonu la ñu lislaam tere la nga xam ne mooy jaxasoo góor ak jigéen xoolal fi gën a tedd ci néegu ci kaw suuf mooy néegu bi yàlla bi yaakaar naa kenn du fi ñëw di xalaat njaaloo waaye ana jigéen ña ña nga fële ca gannaaw ana góor ña ñi ngi fii ci kanam naka noonu itamit la ngay gis ci jataayu xale yu góor ak xale yu jigéen ñu sësaloo tappante waxtaan mbokk loolu ak ceddoo la islaam da ko xaraamal bàyyi leen xel ci loolu bu baax a baax ay xaritoo góor ak jigéen fu ñu toll ña nga toog ña ngay ànd islaam daa xaraamal loolu moom la ñuy tudd al ixtilaat ñaar fukki aaya ak xadis rot na di xaraamal loolu nii la lislaam araamale jigéen du tukki tukki boo xamee ne nii dafay dem moom rek di wéet lu dul dafay ànd ak maxram yii yépp mbokk suñu borom yàlla bi mu ñu koy wax daa bëgg rek ngiree ñu daa di moytu njaaloo googe mu wëlbatiku joxoñ baaraam la nga xamee ne mooy kilifa yi yéen góor ñi yéenay war a taxawu jigéen ñi ëllëg dañ leen di laaj seeni jigéen say soxna sa doom yi jigéen say sœur daañ leen laaj bokk na ci loo xam ne nii du dugg aljanna li ñuy tudd ak dayuus mooy ki seetaan njaaloo ca jigéen ñi nga xam ne ñoom la aar yonent bi alayhi salaam nee na góor boo xam ne fiiroo nee na doo dugg la nga xam ne mooy aljanna su ko defee nga la waayu mbokk julit ñu war a sàmm njaboot gi ba dugal leen ci sëy yu barkeel yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ay yéen ndaw ñi koo xam ne mën naa takk jabar yor ko na takk jabar loolu mooy tax ba mu gën a mën a téye ay bëtam ba mën a moytu la nga xam ne mooy njaaloo ay yéen ndaw ñi ku ko ci mënagul ne jël ay bis di ko woor ba baa yàlla subhanahu wa taala di ko musal ci loolu ay yéen mbokk jullit xam leen ne njaaloo googee day nii ko suñu borom yàlla araamale noonu la araamale lii nga xam ne nii tey nit ñaa ngi nekk ci réseaux sociaux yi di ñuy tànqal tànqal bu dul jeex di ko publicité ca mooy góor jigéen gu bon gi mbokk góor jigéen dara gënu ko bon waaye ay yéen comité bi nga xam ne yéenay xeex guddeeg bëccëg pour criminaliser góor jigéen bu leen fàtte criminaliser njaaloo pourquoi xeexu leen pour ñu nangu carte xale yu jigéen ñi dem di jaay seen bopp loolee moog njaaloo quelle est la différence ki nga xam ne mas naa sëy njaaloo dañ ko war a rey góor jigéen dañ ko war a rey crime la yu yàlla subhanahu wa taala xaraamal da ngay gis koo xam ne ni yoonam nekk ci ma ngay njaaloo guddeeg bëccëg ba pare di wax góor jigéen góor jigéen mbokk dara gunta ban góor jigéen na am njaaloo ay degré la bokk na njaaloo ak yéeféer islam da ko xaraamal njaaloo ak julit gën a xaraam loolu njaaloog jegeñaale sër ak yaay ak doom bu jigéen gën a xaraam loolu njaaloog sa moroomu góor gën a xaraam loolu waaye yooyu yépp ay forme njaaloo la ngal la waaye yéen ndaw ñi ni ngeen bañ a góor jigéen ñi yàlla def ko ñun en tant qu'africain yàlla bañ loo nañu ko bañ leen loolu la nga xam ne mooy njaaloo seen kéemtaleel kattan yaay yi surtout di contrôler seen doom yu jigéen yi tey jii bari na kër yu bari xale yu góor dematuñ fa di njaaloo xale yu jigéen yi ñooy sol seen dàll di fekk xale yu góor yi loolee ngeen bàyyi ci xel bu baax yow xale bu góor bi xale bu jigéen fekk ci sa néeg e waaye xamal ne yaa ngi ci diggante ñaari mbir yërmaande yàlla ak ngërëmam ak merum yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na amul benn julit góor boo xam ne jigéen ñëwal ne ko nekk borom taar woo ko ci njaaloo mu ne ko ah man damaa ragal yàlla lu dul yowmal xiyaama dañ koy keral ci keru arsh amma boo ko fekkee ci njaaloo googo la la cay fekk wax nañ ko sànq su ko defee itamit la nga xamee ne nii ngeen bàyyi ko xel aji njaaloo kot ju tooñul boppam de daa tooñ société bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na njaaloo du tasaaroo mukk ci aw xeet lu dul yàlla indil leen ay taa'uun taa'uun mooy épidémie ca mooy musiba boo xam ne ni day làmb société bi yépp tey jii mbokk corona cinq ans ci gannaaw ndax nit ñi xamoon lii corona tey ñaata million la rey tiitaange bi mu indi ci kaw suuf xooleen nit ñi ak seeni masque xoolal ni muy bloqué économie wallahi dara warulu ko lu dul bakkaar yu bon yi rawatina bakkaaru njaaloo fitna bi nga xam ne day indi feebar bakkaaru njaaloo moo koy indi ca mbokk julit gars yi dañoo tympaniser ci corona waaye avant corona lan moo xewoon mooy li ñuy tuddee feebar yi nga xam ne sëy moo ko waral tubaab di ko tuddee maladie sexuellement transmissible loolee ñi ngi ciy wax en 2006 ñu ne am na plus de quarante cinq millions de cas yoo xam ne nii feebar ba leen daal mi ngi jóge ci sëy plus de vingt millions dee nañ ca ñoo xam ne la leen rey mooy feebar yu jóge ci sëy ndax corona rey na génn walla loolu ala kulli xaal mbokk jullit góor-góorlu woot leen moytu njaaloo ca yàlla tax moytu gankay moytu ci yàlla tax ci jaamu yàlla la bokk ci sori place wéetaay yéen jigéen ñi ngeen móoru sajj seeni xef jéem a ragal yàlla loolee day moo ca mën a fege ay yow mi yàlla nattoo woon nga ma sa njaaloo arhamur rahimin mi ngi lay woo daa di boole laak ña doon bokkaale boole laak rey ko tu nit ña daa dina day képp koo xam ne nii damay bokkaale wala mu rey nit wala mu njaaloo mbugal mu màgg mi ngi koy xaar xanaa lu dul ña nga xam ne dañoo tuub daal di rafetal ñu mel nii day seen bàkkaar yépp dinaa ko jël soppi ko la nga xam ne mooy ay tuyaaba sa borom yàlla mooy kiy nangu tuub mooy ki nga xam ne nii mooy borom yërmande yi looloo tax ñi ngi ciy woo mboolem góor mboolemi jigéen boo xam ne natt boobu musiba bu bon boobee mas ko saa jaar tuub ko tuub gu sell toroxlu sa kanamu borom wallahi yàlla wëlbatil ko la nga xam ne mooy tuyaaba waaye nag nga sol sa dàll takk sa ndigg ba natt boobu la yàlla daloon du dal mukk kenn koo xam ne jege na la nekk sa nga xam ne mooy sa responsabilité yal na yàlla laabal ñu laabal suñu njaboot yal na yàlla musul ñu ci ngaaloo musul ñu ci shirk musul ñu ci bépp foo xam ne dafay nekk minal fahsha'i wal munkar yal na yàlla laabal suñuy xol yal na yàlla jéggal ñu suñuy bakkaar wërsëgal ñu te ñu deeyaale tuub goo xam ne tuub gu sell la yal na ñu musal ci mbugalu bàmmeel musal ñu ci mbugalum alaxira te defal ñu jannatul firdaws mi suñu wàccuwaay allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin